barke serigne saliw barke borom xel kom alhamdulillahi rabbil alamin ala jasil nihmatihi fi kulli awqati suma salatu ala al almuxtaari fi kurama shafi ahli al aradi wa samawati ya maahi ya daimu addim alayna serigne muntaka bashir wa maanu xurba ajali insha allah min as-sabirin wa kull murid bi barakati al khadim barke serigne saliw salaamaaleykum mbokki julli di ma fi fekk mbokki taalibe yi ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala mi ñu kartanal ba nu ñëw fii waaye di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di gërëm cheikh ahmadou Bamba xaadim rasoul waaye di ñaanal cheikh mouhamadul muntaqa sunu borom yàggal ko dëbb ko kartan balim nam ma liggéeyal cheikh alxadim lépp mat ca nu ànd ko ak moom waaye noonu la ñuy ñaanale Serigne di mii nga xam ni moom mooy bunt ci Cheikh Ibrahima Fall xam naa ni sëñ Xaadim sëñ Mbay waxtaan wi yaakaar naa ni na ma ko doon bëgge jàpp ma ni dinaa ko ni mën a amee waa ah, man sëñ Mbay mi may waxtaanloo sax moom anamu waaw hmm? ah, man de dama bëgg ku may waxtaanloo loo yow may waxtaanloo toog moom ah ah kay mhm. su ko defee waxtaan wi nañ ko doon bëggee jàpp naa ni ngir ñu amee ko ko dina jafe ndax jàppoon naa ni waxtu wi dina fekk ñu wëlbatiku cayit it sëñ xaadim mii sëñ xaadim sàmb mii dafa baax rek di cëral waaye yàlla seede na ni lii ñuy def euh, kenn dàqu ko ko yàlla may na ko ci cër may na ko xam-xam ba noppi mu boole kook yaru nag te damay faral di waxti waxtan kat bu yaru dafa am solo ca mom sunu borom da ko defal waw am na xam-xam yaruna na na ko ku woyof dañuy daje ci jotay yu bari muy joxe cër waaye damay faral di wax ni cër ko gis mu koy joxe da ko am waaye kuko amul du ko joxe waaye yalla seede na ni fi so togon waxtan fi lu dak li ñi wax waye nak ni rek la ñogi ñaan suñu borom degeural la ca sam la ci barke alquranul karim di siyaare sëriñ Ousseynou Diouf mii ma toogal nii ci kaw nga xam ni moom it dañoo bokkoon nekk xel koom jiitu na sax xel kom daar yu bari ci daar yi sëñ Saali wi waaye ba ca xel kom nag wëlbatiku waatit bokk nekk Cees muy xaritu sëñ Bay mii wax dëgg yàlla moom yàlla seeri na ni sax fàtte woon na bis bi bi may ñëw laa ko woon ko bis bi tey la mu ni ma kon jaaral sama kër ñu waaj dem loolu lépp nag di ak wooye fa ko mbaax moom it li ñuy wax ci sëriñ bi su toogoon wax ko ñoo ngi siyaar ñëpp kon euh, sëñ xaadim sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Sarr danga nga maa wax léegi ni ma fii nga toog nag mooy Madina Fall loolu nga wax Fall la sant wax nga dëgg fii moom xawma ko ump waaye ki ma dimbali ba tax ngeen woo ma fi xam na ko ndax gi fekk na fi Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Saliou waaw sëñ yu Madina Fall gii la njëkk dégg déggee yaay sëñ Touba waaw nee na bi mu fi fekk Cheikh Ibrahima Fall nee na kër maam yi jëmm ji la la jaar laaj daal ni dama bëgg dalug murit ñu ne ko xanaa nga jaar ci Cheikh Ibrahima Fall nee na bi muy jéggi bi nee na la la la la nu jël ab ab ab ab yéegukaay yi la ñuy wax carotte keroog nee na moo ko yóbbu ci Cheikh Ibrahima nee na bi muy ñëw Cheikh Ibrahima Fall dafa yëg ni jege si na xam nga keroog lu mbaax dani wàcci leen toogu yi ca wiir naanu yi sunu yaakaar adduna ak alaaxira ngi ñëw ca taxagul mu teg bët sëñ Saliou ca booba téléphone xewut bi sëñ Saliou di jub si kër gi dani mbooleem bardaas yi li féetee penku lépp nañ ko tëral ba mu dugg Cheikh Ibrahima Fall da peese nit bi Cheikh Ibrahima bi sëñ Saliou dugg see da koo peese daa xelu këf ko teg ko ci dënd bi boobu nag sëñ Saliou tuut tànk la ci saa booba sëñ Saliou xombal gii ko taxoon a jóg doon dem ci la doon fa seete góor gi ñuy wax sëñ Lamine Silla sëñ Lamine Silla moom mag ñi xam nañ ci la fi jàll si ba mu dikkee keroog Cheikh Ibrahima Fall da koo peese dañu ko tes teg ko ci dënd bi yëkkati ko ni ko diis nga gann yow sëñ Saliou daal teg baat boo xam ni ci la ñu xam ni mooy sëñ Tuubaa dañu ko sëñ Saliou gis gii ma la gis tey wuute wuute gis ga ma gisoon sa baay Mbàkke Kajoor bis ba ma koy jébbal sama jëmm ji dandi ko gis nga bi ma la yëkkatee tëgg la sama dënd bi mboolem ko am cër te nekk barzaq mi ngi may ndokkeel ci yëkkati gi ma la yëkkati teg li ci sama dënd bi daal di ko ku fi jaar nag di liggéeyal Serigne Touba daa tàmbali waaye lépp ci sa loxo bii lay àggee xam nga lu tax mu ni ko réew mu ni ko yow sëñ yàlla xamal na ma ni ma sa dënd bi yow sëñ Saliou mooy bàmmeelu secret gaa yàlla yi sa dënd bi mooy bàmmeelu secret gaa yàlla yi la Cheikh Ibrahima Fall wax sëñ Saliou sëñ Saliou Ndiobane gii muy toog ñu bari xamuñu lu ko waral keroog Cheikh Ibrahima Fall da koo takkaloog njoowaan teg ko ci di ko joow man sëñ Saliou moo ma ko wax man barke borom Touba moo ni ma sàllaaw njoowaan gi may toog du bëgg nguur bàyyi Cheikh Ibrahima Fall moo ma ci tegoon di ma joow ma def ko barkeelu ca booba kenn la ko waral mooy dama doon dund si man Baye Fall laa man man xel kom ku gisub dongub sëñ Saliou laaj ko ni ko Lamine mooy kan maa njëkk a taxawal kuréelug baay Fall te xel kom sëñ Modou Aminta Fall mbubbam mi ngeen man fii ci Thiès sëñam di xalifaal yàggul dara sëñu sëñ mi fekke nag moo moonu woon ñun dongoy sëñ Saliou yu nekk Thiès ñu fekk ko fii keroog ba nu dikkee moom ci jëmmam moo ninu fii ma toog ki daaru bayre ak lii ma fii dund ak di ko def sëñ Saliou moo ma ci joxoon digal te li may def lépp ci moom laay moom laay roy kon gis nga la Cheikh Ibrahima Fall daan ni woon sëriñ Saliou ni ko sa dënn bi mooy bàmmeelub secret gaa yi yàlla yi gaa yi xam nañ ko gis ker keroog ba ko tegee ci njowaan gi da koy jow naan ko sëñ Saliou mbaa yaa ngi may gis borom yàgg naa muñ muñ ni ko bàyyi Cheikh Ibra maa ngi lay gis Cheikh Ibra ni ko yow mii ñee naa ñu jamonoon teg yow yow sañ Saliou nga woo leen ñu ñëw nga sant leen ñu def waaw daal ni ko ñooñu sooyun daal ni ko soo boobaa nag boo ma fàtte ndax yow sëñ Saliou koo fàtte yàlla fàtte fàttelu ko man ci li ma xam Cheikh Ibrahima Fall ñaari yoon ba ñetti la mus a gisee ak sëñ Saliou bi njëkk tees la bi ci des njaarim la ba mu koy gis njaarim nag sëñ Saliou daal di ko toog ca ginnaaw boobu mi ngi àggale xam-xam ci sëñ ma dem ci mujj ku tedd ki sëñ am satu jaxate indi ko fa mu dégg ñu ni jotaayub Cheikh Ibrahima Fall am na mu dikk di root si pas-pas ca la toll boof di déglu moom sëñ Saliou Cheikh Ibrahima Fall jekkeeke daal ni ah doom xet gi may xeeñ xanaa xamoo leen ñii ci kanam ñoo ginnaaw waaye ña ca ginnaaw ñoo kaname yëg na ni sëñ Saliou ngi ci jotaay bi ñi ci kanam ñoo ginnaaw waaye ña ca ginnaaw ñoo kaname ba mu ne nii ba seen ko dani ah doom yëg leen ma ko keedu gone de mag ngi di yëkkati sëñ Saliou di ko joxante ba mu agsi ci moom mu teg ko fii keroog dañuy weer wii luñ fi siyaar ya takk leen ko jokk ko addi sëñ Tuubaa sëñ Saliou daal ni ko damaa dikk di wut si xam de mu ni ko waaye du ci yàq dara da nga xam ba xam loo xam ne am njàng du ko xamle moo tax sëñ Saliou daan dox ba ci yàgg mu ne ndox mi daa sakkan suuf si daa sakkan te see sakkanut suuf si daa sakkan te see sakkanut xel comme daara ji ñuy wax daaru tanzil sëñ Saliou dëkk na fay tu ngoon tàkkusaan nam daan def dox ba ci yàgg mu ne yàllaa xarañ ñu ne ko mbàkke lu mu ni fii de ku ko gas ndox mu neex mu mel ni meew nga fi fekk waaye fee ndox mi day saf xorom daan na ca bëtum ndox ndox mu neex mii du jeex diggante bi am na lu fukki at ak juróom tubaab yi fa doon def si forage bi ñëw yor seen machine yi di xool fan la fa ndox mi fan la ndox mi gënee ba ndikee fa mu taxawoon dañ ni ndox mi fi nekk jàppoon nañ ni amul xel kom keroog ban koy gas ndox mi ba mu bënnee comme meew ba ndikee di ko nettali dañ ni sàllaaw du baatin xam-xam la ah koo xam ne nee na daana toog ak Cheikh Anta Diop ñuy waxtaan ci xam-xam bu raxut baatin mu dem ba li muy wax ci xam-xam Cheikh Anta Diop dootu ko xam mu noppi ndax kersa Serigne Saliou xilmul falak xilmu nujum juhuraaf amul kum ci yemal ton la ko Cheikh Ibrahima Fall ni woon da nga fees ak xam-xam ba xam loo xam ne nekkul ci téere loolee ci Serigne Saliou la fee Serigne Saliou rek ngay gis mu teg ay gone gone yi fo mu ne kee gone Kajoor la kee gone Bawal la kee gone Njàmbur la ñu noppi naan ko mbàkke tey baatin bi nga def mu ni déedéet su dee jàng nga dëgg day feeñ ci seenu pox daan ne am la ci gone goo xam ne suy fo da ngay dégg tëf ray naa ko moom rek lay fowee am koo xam ne tëng-tëng am koo xam ne ali fas am koo xam ne nag moom dafa doon buur lu ko ne def tàggu ko ca nee na loolu laajul baatin nee na xam-xam la da daan yor nii montur rek génn daal ni sàllaaw de waxtu wee wuute mooy dafa dafa réglé daal di tiin daal di koy réglé gars yi daan baatin mu ni déedéet lu nu jàngoon la xanaa xamu ni sëñ Saliou xam-xamam ak xelam mu neex ak gon na ci bari na xaside yoo xam ne bi mu koy mokkal ca njaarim dalagul alquran xamoo loolu dalagul alquran mag ñee nekk ci biir di yëkkati xasida yi mu nekk ci ginnaaw sàkket bi di ko diglu di ko mokkal su ko sëñ tubaan yi xasida yi ngay wax foo ko dégg foo ko mokkale foo ko jànge mu ne ko lii bi ma koy jàng dala guba waaye dama doon dégg mag ñi di ko jàng ma dégg ko mokkal ko moo tax am xelam moom dafa yéemoon ñëpp waaye Serigne Saliou doon koo xam ne fa mu tegoon Cheikh Ibrahima Fall ak fa mu tegoon sëñ Mandumbe Xabbaan ñoom ñaar rek la fa teg loolu moom mën naa koo waat ci sëñ Touba man mii dama doon dund Cheikh Ibrahima Fall te xel kom ñu boole ma ak ne ko Lamine de fi mu ne nii moom sikkar rek xel kom gépp def na ko ay kuréel ñuy sikkar bu yeboo nga woo ko waxtaan ak moom sëñ bi woo ma keroog ba ma dikkee dama koo fekk mu suunu nii ci lal bi gaa yi ma kalaame woon ñëw ni ko Lamine a mu ne ñokkat toog daan ne ma Lamine ñëw nga ma ko waaw mu ne ma yéen de dox ngeen naaj jotoo li ne xewdu waaye ñu tënk ko jotaay bi te ngeen dem ci kees gee ma toog mu ni ma ah sàllaaw nee nañ ma dey daara ji da ngay fay roy Cheikh Ibrahima Fall loo ci jublu barke borom Touba lii la ma sëñ Saliou wax dégg naa xel comme da nga fay roy Cheikh Ibrahima Fall loo ci jublu bi ma waxee loo ci saa si damaa deg xaw ma lu koy tontu mu ni ma sàllaaw yow rek lay déglu loo ci jublu bi mu ni ma loo ci jublu gu ñaari gi daa mel def naa gàgganti ma ne ko man de la may def sax xaw ma ko waaye Cheikh Ibrahima Fall moom damaa xool sa jëmm ji gis ko ci sa biir di ko roy sëñ bi daanu yëkkati loxoom day jooram bii moom sëñ Saliou teg ko ci dina mi li ma la may ne ko Mbàkke mu ne man sëñ Saliou laa man sëñ Saliou ma ko wax man ab bay Faal laa la ma sëñ Saliou wax dal ni ma yonu mourid ñaari mamum yi mamum la wax seigne touba rek ko am mu jik ko mooy Cheikh Ibrahima Fall doxinam wa ak doxinu seigne Serigne Mandoumbe Xabbaan kenn ku ci nekk jaaru yoon yoon ya wute lol ci teewul kenn ku ci nek ag ci borom ngir ma daan ni Cheikh Ibrahima Fall day ñi ko xam niwna waye xam ngeen wata bi ni wax ambulance ñu ni ko waw mu ni moy Cheikh Ibrahima Fall ak lamu mu yëpp oto boobu da ngeen gis fu ñu ko téye mbaa yu lëg ma la mu yëpp ñu ni ko déedéet mu ni sàllaaw noonu la mel fii ca noonu la mel foofee moo tax Cheikh Ibrahima Fall damay faral di wax ni ku koy bëgg sëñ Saliou gu koy bëggle ñun ñii sax nii ñuy waxee naan Cheikh Ibrahima Fall sëñ Saliou daa ko moom bàyyi Cheikh Ibrahima la daan wax bàyyi Cheikh Ibrahima la daan wax kon sëñ Bayloo sooy cant Cheikh Ibrahima Fall di ci ndukkeel di ci ndokkeel sëriñam di Xadi Fall woo dongob sëñ Saliou ni ko damaa bëgg ñu waxtaanaale ci sëñ Saliou boole nga ñaar ñoo xam ne ñoom ñaar xamante nañ te sëñ Saliou nag damay faral di wax ni lu waay def danga ko cee war a boole sëñ Saliou mënu cee ñàkk mission bi tëxoon Cheikh Ibrahima Fall dikk sëñ Saliou sëñ Saliou ko àgg sëñ Touba sëñ Saliou ko àggale sëñ Khadim gis nga la jëlee sëñ Touba Mbacke Kajoor ma ànd ak Cheikh Ibrahima Fall di wër suuf su yaatu suñ liggéey la yàlla xam nga lu mu doona ah? tarbiya rabbi ashabaka bi himma wala turab bi dars moo leen yëkkati woon ñuy wut suuf soo xam ne ca la ñuy taxoo ngir defar ni mbindee fi jaar Mbàkke Bawol gii mu xat ñu dem Daaru Salaam am fa ñaari at mu xat ñu dem Daaru Marnaan mu xat ñu dem Ndaam mu xat ñu dikk sanc Touba Touba mujj xat ñu dem Jolof mission bi ñëw Serigne Touba ba mu ko wóoree ni mission bi am na beneen mission bu ko dabaat ca boobu faaw mu dem ci nag ci la batale mission bi nga xam ni moo ko taxoon a jóg moom Cheikh Ibrahima Fall xam nga ku ko ku ko batale sëñ Saliou sëñ biko bi sunu borom di jox Serigne Touba booba sëñ Touba demagul ci géej gi te xam nga sëñ Saaliw 1915 la waaye bi ko jëm jëmmam ji bi ñu koy jox sëñ Touba booba demagul ci géej gi. yaa ngi dégg jàkka ji ñuy wax Daaru Xuddoos foofee nga xam ne fële Serigne Touba gisee woon gisante woon ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi beeg ko daal ni laa ilaha illallah araytani wa qaala laa moo tax nga dégg waykat ba naan seen àjjanaa ngi murit seen jàkka gis na yonen Bàmba yonen keroog ñoo janoo ca biir Touba. nafsi wa diini tufal ahli ba tekke walat wa maskan yi gaañ a arrière jël Touba yaa maalikal mulki yaa moom penku moom la ci suuf irham jami xalwara jébbal borom Touba su ñëpp nee waaw li gën neel waaw te xam ni du déet waaw waaw Serigne Bàmba yaa nii moom ba biir Touba. su ñëpp nee déet li ngeen neel déet te xam ni du waaw ku dul sëriñ Bamba sëñ dég daamatul Touba waaw ah, foofu lañ gisantee yéen Touba alayhi salaatu wasalaam dikki ni ko yow li la taxoon a jóg yow sëñ Touba mooy giraatu xur bu samaan sa borom nee na bis ni tey tekk nga ko sëñ Touba ni ko waaye bis ni ki tey xeeb naa ko waaw lu la tax a jóg mu ni ko bokk ci waa ahlu Badr mu ni ko waa léegi tarbiya gi ak taqoo gan la waxoon ca Mbàkke Kajoor mooy walaatu rab bi dar si faqat rek léegi noo koy def Serigne Touba daal ni ko damaa bëgg yow sa jëmm nga ñaanal ma saa borom mu may ma ci xutbu samaani koo xam ne dafa waroon a moom jamono. tarbiya joojee ma àndoon nag Cheikh Ibrahima Fall war koo def mu taxawul ma ko ma dem ci géej gi dimbali mi dee fi nee na ca daaru Xuddoos la ma saa borom tàmbali di ma woon ay jëmm naan ma ndax bëgg nga kii ci xutbu samaani la. nee na léeg-léeg mu war ma kenn ma ne ko kii bëgg naa ko waaye bëgg naa keneen mu koy wan di ko woon ba jëm ma wan ko jëmmi sëñ Saliou ji. sëñ tubaa dane ko waaw kii laa bëgg soo déggee sëñ tubaa naan asaalihal li si yu kammilul amal naan sama sama samay mbir sama yéene sëriñ Saaliw moo koy mottali loolu moo doonoon yéeneem te ci moom la war a mate looloo waral nag mu daal ni ko nag soo demee ci géej gi ba ñëw laa lay doog a jox jëmmum ji sëñ tubaa dem ci géej gi ba ñëw gis nga 1914 14 laa la wax bi Cheikh Abdoulaye Gane àdduna sëñ tubaa dafa dafa annoncé Gane ak àdduna ak sëñ Saaliw Cheikh Abdallah daa gane àdduna mu ni leen kii de ba ma amee juróomi weer ci géej gi la ma ko saa borom jox dig ma ko waaye am na ku ko jiitu woon koo xam ne Touba la ma ko dige woon waaye dañu woon su kii dikkee ba ca déwén sa la koo koy ñëw daal ni kii nag moo di sama jàmm ak seen jàmm joxoon Cheikh Abdou Lahad daal ni waaye kooku nag su dikkee mboolem lu ma mébétoon ak lu ma tàmbalee ci loxoom lay mate Cheikh Abdou Lahad dikk 1914 ba mu dikkee 1914 ca déwén sa 1915 jël sa sin ci arab fajaroog ajjuma Seydina Serigne Saliou ñëw moo tax sëñ Cheikh Sarr sëñ Saliou sa waa mooy borom ñetti fajari ajjuma yi sëñ Saliou fajaruk ajjuma la ganee adduna fajaruk ajjuma la uutu sëñ Touba fajaruk ajjuma la dellu aljanna moo tax nga dégg waykat ba naan bisub ajjuma yéeme moo def lu ñëpp yéem moo jël sëriñ Saliou kërum ñëpp a jooy keroog nit ñi ban jullee jumaa jóg di waaj a dem dañoo wàcce ay kaamil ca nee nañu moo ko wax sëñ Xaadim fajaruk ajjuma ca jël sasin la borom xel comme gane adduna ca njaarin xam nga ku ko wax si sëñ Touba sëñ ma Lamine Diop dagg na ak Serigne Makhtar Bintaloo ñoo di ko fekk sëñ ma laan ci bunt bi ñu ne ko soxna Faat Jaxate amati na gan ak kaddu ne ca ginnaaw naan ah moom de kon ñu ñaan ci ndax kum am mu dem fekk boobu soxna Faat Jaxate daa am Abdul Xuddoos mu dem mu am Abdul Baaxi mu dem mu am soxna Taaxiir ñoom ñett ñëpp yéeme lool waaye teel a dem sëñ Touba ne yóbbu leen leen ca ndaam ngeen dendale seen ñetti barab yi dañoo mottali ko ci sun matee ki ma yàlla dig dikk kooku su dikkee toog moom mi ngi junj Seydina Serigne Saliou waaye fajarug ajjuma googee mu ban dikkee fekk sëñ Tuubaa ca keesu soo demee njaarim di ko fa fekk démb fa laa yendu nee na fa lañ ko ni ko Seydina Serigne Saliou feeñ na jamono sëñ Tuubaa daa cappoon toog bi ñuy wax capp jublu penk na Cheikh Abdoul Khadir mu baax ma daa toogee waaye dañuy bëri jóg taxaw ni leen soxna Faat Jaxate ngeen dem la gan ñu ne ko waaw mu ni góor la ñu ne ko waaw mu bind ci suuf saaliha daal ni mooy turam jox leen ko ko Sëriñ Tuubaa daal ni ko ma laa min góor la mu ni ko waaw mu daal ni ko ne leen wóor ni samay mébét mag na ndax kii la ma yàlla doon wax samay mébét ak samay yéene kon mat na ndax kii la ma yàlla doon wax waaye sëñ Xaadim gis nga fajar googu nee nañu am na ay garabi mango ki garabi darkase yoo xam ne dañoo dee woon ba wow ca njaarim waaye fajar gi sëñ Saliou gane àdduna dañ doon jébbiwaat ngir jëmm ji feeñ jamono kun naan sëriñ Tafsir fay nee na sëñ Saliou dani ko fajar googu day sëñ Tuubaa mbégam ma soo yéexee moo fa indi rasulullah yi ndax dikk na fa am fa fukki at ak ñaar am fa sax fukki at ak juróom la wax daal ni fukki ak juróom yooyu déedéet fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom daan ni ko fukki fan ak juróom yooyee moom la Serigne Touba def ak mu ne bis bu ne at moo tax mu def njaareem fukki at ak juróom moo tax mu def njaareem fukki at ak juróom waa sëñ bi koo xam ne da ngaa feeñ jamono rasulullahi di ko gane si la sëñ Touba tudde ko xam ne keroog la la tur woo musa jub tuddul saalihu de ñoo yàq tur wi saalihala daam ku naan sayer Mbàkke dafa bind kaamil bu yéeme jox ko ko booba ma nga jógee daaru daaru tanzil ba mu dikkee jox ko ko sëñ bi tijj ko xool ko daan ni ko mbind mi wow na rafet na mat na sëkk waaye sama tur wi nga yàq masko lonk nga ko def ca sëñ Tuubaa ca njaari maska yeet la ko defoon bokkoon na ci jubloom nga sàllaw mu jug jamono mu jubalul ko ñëpp sëñ Xaadim xanaa xamoon ni sëñ Saaliw fi mu nii ñun ñëpp moo ñu tarbiyee moo ñu defar daaree lagan la ko waxe jamonoy sedd ñun ñëpp toog mu ne na ngeen ma taalal taal bu yaatu damay jaaru te ñëpp mën nañoo dikk bokk ko ngan gaa ñi dikk wër taal bi señ bi jël ñaari frotté diwoo ko ba niin frotté bu ni wax sumbul ban, ak frotté bu ni wax tëbëj ko ko laaj mag dina la ko wax señ bi diw ko ci loxoy tanki ba mu toy muy jaaru tak tak bi cios loxoy mu jekke gi di xol gaay ba seg daan ni ba yaakaru ni yeen rek lay tarbiya gaay ni ko ah kay dala lan yaakaron de mu ni hu bu len ko yaakar yéen gëna neew ci ñi may tarbiya bari na ñoo xani seen kër ndey ya la len di fekk ci seen neeg ya تربي لين تصفي لين ترخي لين جوك جوك لين غير مال يالله ني باخ ديفرو لول باخ ني كوي جين كوني فك بوبو سالي وكو باركيلو باخ جلا واخ ني كوي جين كوني فك بوبو سالي سالي هو موكو باركيلو دالي سودي تربي لي ني لاي تربيسي ني نكو باكي كان كان موري خسيد يك داو ني سيغ خادم لينا خامل ني سيغ سالي دا تربيسي وون خسيد يي موي لي ماي واخ كوكو سيتلو رك نين كو سيتلو خسيد جي ني واخ جاري بتول مراقب xasida gi ñuy wax nooru daaree ni xarina xasida gi ñuy wax xitma xasida gi ñuy wax mafatihul bisiri xasida yii laa ni laata sëñ Saaliw borom këraw gu ñuul bokk ci seetlu leen li ma waaw borom këraw gu ñuul gan mooy sa xasida mu ni jaalibatul maraqib ci jamono yi sëñ Saaliw la tàmbali waaw yow gan mooy sa xasida nga ni nooru daari ni borom këraw gu ñuul sëñ Saaliw ko fi xewal ba mu dikkee la ni jàngi leen xasida yi ñu ne ko mbàkke yàq yi mu ni fu ñu koy yàq dara du fa yàqoo ñu ne ko Mbàkke dix ans yu xas day mu ne hu jàng leen ginnaaw ñëw naa lépp fay baax njariñ képp lay doon waaye du am lor barke borom Touba ba ci ndaw luy waxtaane xas ndaw luy waxtaane sëñ Touba sëñ Saliou ko fi indi ndaw lu toog karaw gi ñuul mu dikk toog sëñ Touba bu njëkk soo nee sëñ Touba mag ne la àndul kooko mag la gone du ko du ko du ko waxtaane xasida yi bu njëkk soo demee gone da ngay dand ne le mag ñi taxaw di ko yëkkati boobu mag bokku ci waaye sëñ Saliou dikk wax waxam juree ja jox leen ma ndaw ñi loo ci def mu ni la sëñ tubaa defoon ca man ña lan ca teg nag nee naa nit ñi dañ koy yàq man mi fekk ba mu koy wax déggu ma noonu xam nga gars yi dañ naan sëñ Saliou dañuy jox leen ma ndaw ñi ma def ca ñoom la sëñ tubaa defoon ca mag ña su ma ko yeewul man sëñ Saliou ma barkeeloo ko waxul loolu sëñ Saliou jox leen ma ndaw ñi ma def ca ñoom la sëñ tubaa defoon ca mag ña ñoom ndaw ñi suñ ko yeewul man sëñ Saliou ma barkeeloo ko sëñ Saliou xam na ni la nekkoon ca Cheikh Ibrahima Fall ne ca sëñ Mundumbe Xabaan ne ca sëñ Daam Abdourahmane Lo xajul ci gone kon gone gu mu dugg ci yow daan ko ko barkeeloo waye attanu ko moo tax nga dégg ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ndaw ñi la won ci mag ña doonoon sëriñ ba lam tek ci lolu lu mu nëbbatoo la ko weddi xol lim def ci ñim ba ñu ne ko ñal la fi ba mu ne hafiz qur'an yu laqi ridwan boroomi kiimaan am ci ñim ba ñu laqi xam-xam mbollem lu nit xam wunu ngëm amna ci ñim ba ñepp di bay angar yu reuy ba doy war duñ xaddi duñ bax delo ko ko ni ko lepp ci yaw la moo tax ñu naw la delloo nga yàlla njukkal di xutba sëñ xaarim daa noppi rek beneen waykat bu mën a way te xel kom jël ni ko sëñ Saliou yëfi yow la damay way ki jar way samay way du jeex nde moom mooy ki may way sëriñ Saliou moo ma neex ñu ne ko lu tax mu ni bu may way ba koy way xalaat jëm ci moom li may wax du jar way sama xol di jeex li saa xol di fas moom la saa xil mënul te lennal ko moo war nde lim am du jeex ma far naa ko yow yaa di koo xam ne nii sëñ amoon amoo ndendandoo fenn yaay nday ji Cheikh Serigne Bamba moo wuutu yoon nen ba tey nga wuutal ko jëmmam ja semmal ko Cheikh Serigne yu jógal jógal bàkku yaay sedda tey da ngaa raw ci kuy mbër ca noppen ni meex da nit ku mat nit ci doo nit ci wet li ngay jommalew nit di ci col gu weex sëñ Saliou ñu doon nit dañuy nit ci yow raw nga nit ba far xam ci aw nit lu xool mën ta jeex meloy Bamba yaa ngi ñu teg bët ci yow ni koy déglu déglul ku déggul ni meex su ne jàqa kay rek ku teg bët ci yow sëñ Saliou da ngay bég dalal xol yi ngir xol yi féex te li xew ci aw tiis nga ñuy dolli ngëm daan ni ko mbégum yàlla maa ngi ku lay bañ du feex kon sëñ Saliou ñëpp ko yëreel njukkal kon nii nga def di sant Cheikhul Khadim cëral ci Serigne Saliou mbooleem koo xam se ni dégg nga Serigne Touba barke borom Touba nii nga def rek la war a def sëñ Saliou wa dimbali ñëpp li nga woy sëñ Saliou laa nga baaxee ñu ci dama bëgg ku ne xam na nag li ma a def wax. ku ku yaakaar sëñ Saali dama bëgg a sa loxo ca kaw. bu wàccee nag ku jàkkaay ci posé moo tax man ñu jox ma kër àddiyam lii wax lii muy wax nii sëñ Assane Mbacke xel ko. ñoo bokkoon Daara. moo ma jox wolof lii ngay wax ma wax ko. Mm-hmm. ñu jox ma kër addi sëñ Saliou Mbacke. hasard amul de moom laay waxal la barki Cheikh Assane ay ah? Ah, sa nee waxtaan. wax. dama jàng ba. damaa wax ak moom muy xoolal. waaw ah. mun ma envoyé ma ko xoolal. maa ngi wax mooy. waaw <laughs> waaw ah, ah, moom kay moom. lam tek loola. lum lakkatoo naa. ku weddi xoolal. lim def ci ñimba. jox leen ma ndaw ñi. ma def ci ndaw ñi. lawoon ca mag ña. dooroon sëriñ ba lam teg ca noona lam lakkatoora ku weddi xoolal lim jëf ci ñim baam ñi dundal islam dundal ko ci njaam xeñtul ba dem saam xeñtul ba dem saam dooroon ci ñim baam ñëw leen ñu jox ko àddee sëñ Saliou Mbacké kooku hmm. wallaay dama bëgg ñu jug ana ñan ñan rek ñan la sëñ Saliou mos a defal loo xam ne xam nañ seen ndey mënu ko ci ñoom seen baay mënu ko ci ñoom ñu ñëw ñu teral ñëpp man mii nag sëñ Saliou Mbacke lii nga wax sànq man sëñ Yadara Mbacke laay siyaar waaye li gën yéeme mooy man xam naa ni sëñ Saliou am na ci ma lu leer laay wax. am naa ñu ma bokkal fi sëñ Aïdara Mbacke kii. maa baaxut Serigne Mos. waaye sëñ sëñ sëñ Aïdara Mbacke dafa mës a wax lu yéeme yéeme yéeme daan na ko ay dara nii ngay def sa ndaw ko ñëpp defoon sëñ Touba am na li bëggoon. moo tax li mu wax ne dina fi nekk maanaam dina am ñoo xamante ni dañuy nekk ci daara ji am ñu fa ñu fa nekkal. loolu dëgg la ndax man mii di daan woon mhm. maa ngi leen di jaar ñoom bu baax mhm. waaye nii may jàngee xasaay bu jàpp naa ci benn daara kon lii nga wax ni dëgg la man ci sëñ Saliou laa newoon ci ma mhm. dara waaye sëñ Saliou lim mujj waxante ci kaw suuf rek war naa tax lu di def boole ko ci gaa yi ci moom lum leen dénk mooy lii gaayee fa mujj dañoo dikk mu ni leen dama nam ma seenum njàng jàngal leen ma gaay yi jàngal ko xasida ak wakaana xaqan ba mu jeex moo tax sëñ Saliou suñ ñee la xasida gi ko mujj a jàngal wala bokk na ci yi ko mujj a jàngal ci kaw suuf neel wakaana xaqan waaw mu jeex mu daan ni sa law de xaaju maa mandi de gaay yi daaj jës bu genn wàll gi jës bu bi jeex sëñ bi daal di laajal boppam daan ni daa am xasida goo xam ne day suñuy jàng xasida yi mën sëñ Saliou damay mel ni koy naan waaye li fekk jàngun ko damay mel ni man diw ma gaa yi ni ko gën xasida la mu ni mi daal di wàqlaam yi gaa yi dëbbi ko sëriñ bi daanu gaa yi tëji rup naa sukkur si biir kaay fewu noonu sëñ bi daal ni leen hm, doyut waaye baax na daal di jóg toog xanaa xamoo leen nii sëriñ Saliou jal njaal beenam sëriñ Touba waaye ak mujjëm Cheikh Ibrahima Fall la ci ñu ko gis ca xam ko laa wax nag man karaw gi sëq batul nii mu yëkkati loxo bi tekki di ko baram daani hum damaa xam ne yar aw nit ba nu miin la nga miin leen ñu xëy dootul la gis de lu metti la yar aw nit ba nu miin la nga miin leen ñu xëy war laa muñ lu metti la daan ni nii daan ne waaye man sëñ Saliou ci man la daan ne leen rek nag laay ragal sëñ Saliou way wax de leen rekk laay ragal ngeen dem ba gis tuuleen ma ak bët ngeen fàtte ma barke borom Touba nii la ko waxee dama koo ragal ngeen dem ba gis tuuleen ma ak ngeen fàtte ma su ngeen demee ba gisatoo leen maag bët te fàtte leen ma lu ngeen di def ma bokk ca sàllaaw day dinaa jóg seen kanam xéewal yoo xam ne seen i itte du ko jeexal moo tax gis nga soo bëggee seen xéewal di bari looy def na ci sañ saali bokk billaahi li la wax su ngeen di def lu ngeen di def ma bokk ca fàtte woo leen ma su ngeen ma noppee gis lu ngeen tàmbulee tis man Serigne Saliou ma àggale te damay faral di wax ni sëñ Saliou day sëñ Tuubaa ci lépp xoolal bis bi ko Serigne Saliou Touré di fekk daaree got gii fii ci Thiès daal ni ko Cheikh Abdoul Khadir làqu bis ni ki tey yaay sëñ Touba sëñ Saliou daal ni ko bis bu ma waajalu toon dara lu ma ci def maa ak dimbalub sëñ Touba waaye mosuma koo waajal gis nga keroog ba muy waaxu laata muy dugg Touba daa dikk ma ci sotti Touba bi nga xam ne duggagul mu tax foofu daan ni dem leen Daaru Rahman ca Touba xam nga Daaru Rahman ca Touba mooy fan kër sëñ Soyibu jàllaa bi moom sañ Tuubaa mujj a jox ma nga ca gaale soxna Fat jaxatee ko fa defoon soxna Fat Jaxate kër gi sëñ Moustapha Saliou nekk moo doonoon këram waaye Cheikh Abdoulaye ta ko mujj jël andi ko ci këram googu fa la làqoo biir kër sëñ Blaat daal di jël kër ga jox sañ Moustapha Saliou ñu dikk foofu ci Daaru Rahman kër sañ sëñ bu am ñu ko daan wax Daaru Naar ñu tijji gaal ya fekk fa ñaari jàlla bi ko sëñ Tuubaa mujj a jox moom sañ Saliou mi ngi ci entrée bi du gugul ba ndikkee jox ko jàlla dañ leen téye benn bi ñu jox bi gën a tal mu woo ko doo gis photo ba mu kaalewoo jàlla bi bu tal bi te sol yëre dara bun gome bi mu dëgër bi bis booba la ñu jox ko mu capp jublu penku daan ni nii kaalewoo dara ji jublu penku ni bëri jóg taxaw daan ni mat naa jëmmi sëñ Tuubaa ji ndax dañu ma woon soo da ngay attan kaala gi kaalewoo ko dugg biir Tuubaa gis nga keroog ba mu duggee barab sëñ Tuubaa la njëkk a dugg waxanteeg moom la muy waxtante waxanteeg moom jiitlanteeg maxtaar jaxateeg bàyyi jaw ba mu di kii ba fii ñu ko denc fi la su jot su jot su yàgg ba mag ñi tiit ba mu ne bëri xam nga lu wax sàllaaw na ngeen sant yàlla de bis ni ki tey saa borom dogal na ci man ku yàlla mi sàkke jàmm ni man sëñ Saliou maa lépp ci mindeef maa maa lépp yërmande ci mindeef yi àdduna ak laaxira ku dul sunu borom maa lépp yërmande doog a dugg biir këram woote wooteem bu siiw boobu ngeen di dégg xasida yii mu tàggatal nu ko ban man koo jànge nu nu sopp fexe ba nu silwiise fexe ba nag ñu làq ngërëmal yàlla ci xewutoon waaye sëñ bi koo xam ne àgg nga toog sa kër genn gone dikki ni ko Mbàkke tey de da ngaa magal te même fii jógee da ngaa gone lool ca diggante bi bis bu dellu si la sëñ bi ni ko la xanaa xamoo leen ni yéen su may magal baa may tawat yéen muridi yéen a ma koy teg ak juldi ñu ne ko Mbàkke lu tax mu ni li ngeen di mooy seen borom ak li ngeen di tooñante bàkkaare su ngeen tëddee ci guddi gi dama koy sekki seen jëmm yi sëf ko sama bopp ndax damay bañ kenn faatuwaale ko ci de faatu dem sawara ca saalihu ne fi ni day man saalihu dama rus jant bii di ma tiim di tiim beneen murit ëllëg mooy lay sawara sawara ko yaay moo tax waykat ba ni na ngeen déglu tey laay wax ci sëñ bii nu yàlla jox fu laak fayda ngor teggin lewet maandu muñ joxe safoo ndaw te xormaal mag sëriñ bii ci sut ku ne hayaa naasu yéen laay wax sëriñ bii jëfam fu ne daleel penku dem gànnaar ba saalum demal fu ne ci weddi yi jëfam réerul sëriñ bii defar gone kon sëñ Saliou ñëpp ko war a sat sëñ Saliou ñëpp la mën a àndal soo tuddee Cheikh Ibrahima Fall nii lañ koo tudd ci mag ñi man soo nee ma kaay waxtaani Cheikh Mamadou Fadel dama naan la waaw naa nekk moog sëñ Saliou nga ni ma Cheikh Abdoul Ahad man la jekku naa ko moog sëñ Saliou nga ni ma Cheikh Abdoul Khadir man la moog sëñ Saliou nga ni ma Cheikh Mouhamadou Fadil man la moom laa gën a xam ak sëñ Saliou barke borom Touba kon sëñ Baye. waaw yow moom la sëñ Saliou doon moytuloo yi dalu la. mooy damay bañ ngeen dem ma gisatoo leen ma ngeen fàtte ma te gis nga nag kóllëre sëñ Saliou kopp ñëpp lu leer laa lay wax sëñ Saliou laa gis muy te bay kóllërante ak mbaam yii ñuy takk sare eh. daaree njurul dafaa yoroon la mat juróom benn fukki mbaam di ci bay ba benn bi mu dikk daal ni dama bëgg ngeen wut ay tiir ay nag di ci bay ca jël nag yóbbu leen Touba jox leen ñu new doole ñi mbaam yi bokk gaa ñi jiital mbaam yi di leen yóbbu sëñ bee ngi ci biir daaree njurul mbaam yi daw lu tolloo kilomètre di dem Touba jékki-jékki ñoom ñëpp wëlbatikoo ndoo ñëw ci penc mi waaw waaw